a'udhu billah bismillah barke borom touba serigne touba ak koor waxna ci silkul jawahir ne bokku na ci liñu ñu taamu ci wéru koor top sa borom kër ngir wut ngeeramam loolu dina may nit mu am yoolu yaari soxna yi sayyidatuna maryama ak sayyidatuna asiyatu ak ñaleen doon roy ba am lu baax waxna yit ñuy farlu ci fajj aajo nit ñi lu am solo la ci weer wi ndax ku ci fajj ittey kenn nit yalla dina ko defal ca ya jéego bu ne juróom-ñaar fukk ci ay yiw faral ko it juróom-ñaar fukk ci ay ñaawteefam te wax nañ ci àddis ne am na nit ñoo xam ne yàlla da leen a bind ngir ñuy faj aajoy nit ñi te nit ñi dañuy wekku ci ñoom ngir ñu dimbale leen ñooñu leen di dimbale yàlla du leen bugal mukk amul 根本不管。